ñàkk na ci yenn ci ay cëram ñàkk na ci sax bëtam waaye lu ci mën a am ne baale na waaye fàttewul Moxtaala Gay euh, dem na seeti ko ca màkkaanam ànd ak équipe bu Infos Matin ñu teewlu témoignage bi ñaar fukki at ak juróom ñett ñuy fàttaliku bés boobu nga xam ni euh, amoon na jéeye bu mag bu amoon ci diggante policiers yi ak euh, ñi nga xam ni dañoo féete ci Moustarchidine wala Moustarchidaat euh, capitaine moo capitaine buñ la doon laaj journée boobu yow yaa ngi koy fàttaliku dëgg-dëgg. maa ngi fàttaliku bu baax bisu mercredi la woon 16 février. 1994 man sama compagnie bi dafa xëyoon monter à 7 heures du matin waroon na wàcc à 13 bi demee ba midi midi et demi góor gi Mbodj doom si yàlla yal na ko yàlla yërëm ne ma moo nee naa da ngay maintenir sa compagnie bi ñu toog ci commissariat bi. bi ko waxee moo oo nit ñi par rajo ne leen ngeen rallier ku wàcc na rallier commissariat central buñ toogee ba 14 heures mu ne ma dangay jël sa élément yi nga dem def patrouille à l'avenue Cheikh Anta Diop bi ñëwee ba euh, Sandaga ñu taxaw ci rond bi wàcc ne éléments yi na ngeen mettre en condition les grenades parce que xam naa euh, sensibilité grenades yi euh, may leen na ngeen ko manipuler ndànk. lan moo amoon. manifesté woon après après la ñu waxoon ne Moussa Sidini yi ak Moussa Sidaat yi ñoo doon manifester avec l'ensemble de l'opposition sénégalaise. à la tête maître Ablaye Wade euh, et et consort bon seen manifestation bi ñu ko doon defee à l'avenue Charles de Gaulle à un certain moment les manifestation laaj ne dañ bëgg a manifester yuuxu yuuxu ñetti yoon Ablaye Wade ci boppam ne leen da ngay doon manifester manifester leen loolu moom mu ngi sama bopp bi ba léegi loolu nag ba mu xamee ba mu xewee. man fekk na man bon fa ma ne xamula fa xam. waaw pour rappeler contexte bi rek mooy que ni euh, dafa amoon benn euh, manifestation bu amoon euh, coordination des force démocratiques moo ko organisé woon léegi nit ñi ba nu ñëwee bëri Abdoulaye Wade daal ni vous voulez marcher et eh bien marcher noonu la mbir mi damee nit ñi commencé ku nekk di fippu. voilà. voilà bi mu waxee loolu vous voulez marcher marcher le déferlement bi commencé mais loolu aussi bon man ma nekk moon secteur boobu secteur boobu yeneen policiers ñoo fa nekkoon ñu nekkoon ka Abdou Diassé ñoo fa nekkoon d'ailleurs ci lay ci lay policiers yu bëri gaañoo def naa ci la cinq policiers yi gaañoo waaw voilà voilà voilà a y a voilà y a six policiers 4, 4, 4, 4 gagnés de la paix et un lieutenant. Et un lieutenant. Et des blessés graves. parmi ces là man ci laa bokk. est-ce que mës nga mën nga dellu si ci euh, sa blessure nan la amee ñi ngi fàttali que ni yow euh, sa ñaari loxo nga ci nga ci ñàkk. mënuma la wax dara ci lim passé. mënuma la ko xam nu mu demee te ba léegi man sama bopp xaw ma nu mu demee. xam naa ne daal bi mu nekkee ci ci ci ci ci ci bi mu nekkee ci oto bi. nekk ci oto bi euh, maa ngi woon a grenade une grenade offensive bi mbir mi amee moom laa lay wax ni xaw ma nu mu demee ba léegi ñoom ñoom ñoom ñoom ñu nekkoon ci oto ba ñoo la mën a wax nii la demee parce que xam nga man xam naa euh, danger bi nekk ci grenade dafay dafay exploser par sympathie bu tëf amee fi tëf amee mën naa toj d'ailleurs ci laa ko waxoon xale yi ne leen moytu leen grenade yi baax bi ñu koy conditionné. à mooy moytu leen grenade yu baax parce que dafa yomb explosé dafa sensible boo bëgg fa attention waaw ndekete man bi may wax loolu xaw moon ne man man moo may daal man ah bi loolu amee wax naa ne dégg naa ci ñuy def appel di appelé di di o alkaati yi pour ñu intervenir par ci par la à un certain moment xamatuma ci man dara xëy xam naa ne boobu man li xew-xew mënu ma la wax daara ci ne ne lii man lii moom arrivé man point E laa daan bi ma daanoo point ah, E bi ay akaati mais dañ ma fa bàyyi dañoo daw bàyyi ma fa donc ils ont laissé leur chef sur le terrain je n'ai jamais prononcé ces trucs là su ma ko wax tey laa ko soo wax mun ma ko wax parce que dama dëgg laay wax moo m'ont sur le train ils ont <laughs> dañ bàyyi seen kilifa gi àndaloon ci terrain bi. maanaam yow loolu loo ko jàppee comme trahison. munu mënu ma trahison la je sais qu'ils ont fui en tout cas <laughs> ils m'ont laissé sur le terrain bàyyi euh, en état très très très en état de coma. c'est un militaire un caporal Diédhiou qui quittait l'hôpital Yeso mu jaar fa gis ma si ngay xool de quatorze heures à dix neuf heures ma tëdd foofu di sañe bon yàlla mi nga xam ne dal taw ko moo ma téye mais du dem doomu aadama moom fa jëlee yóbbu mu hopital principal j'ai été dans le coma tàgge nañ ma. tàgg nañ la comme ku bokk ci victime yi. ah oui tàgg nañ ma comme ku bokk ci victime yi mais euh, xam naa ne bon peut-être que euh, après avec euh, ndogalu yàlla maa ngi fi ba léegi ah ba loolu amee caporal boobu jël ma yóbbu dugal ma si dugal ma si taxi yóbbu ma hôpital principal bon def naa fa xam a cinq jours xam ne six jours bi ma bi ma jógee bi ma bi may xamale ko ma ma gis lu mel ni mbaar mu weex mu mel ni dama yoroon oto boo xam ne dañ accidenté maa ngi naan eh, waaw mais camp bu jaas sorul fii téléphoné camp bu jaas ñu di seen ambulance bi boobu maa ngi tëdd man le capitaine Seck de l'ophtalmologie de l'hôpital principal ne ma tu es à principal bi ma waxee tu es à principal ma ne mais qu'est-ce qui se man li ma xam ne j'ai été amputé euh, xam nga amputation bu kii dafay tàng toujours ak bandage bi ma def nii sama loxo sama loxo yi def nii def nii def nii def nii daju ma dara ma daj bandage ma def nii def nii def nii daj ma daj bandage. ma ne donc vous avez été amputé. est-ce que d'un seul coup amuloon choc ci yow. deful choc ba léegi yàlla dimbale ma yàlla dimbale na ma ba mosuma jël sama bopp comme un handicapé. nga yeewu yëg ni juróom benn ci say euh, ñi nga doon liggéeyandool génn nañu àdduna mu am ay blessé yu garaaw yu ci am après nan ko dundee. waaw ni ma ko dundee mooy dogalu yàlla la. xëy na dañuy wax ne ci bis boobu la ñu waroon dem ci seen biir liggéey ñu def seen liggéey ba dem ci parce que loolu man de mu ci demoon itam ma xam ne dem naa ci loolu moo tax problème amu ko si xam nga yéen ngi wax euh, amputation ñaari loxo ñaari loxo ñàkk kooko ñàkk sama bët ñàkk naa ko si et je vis avec des acouphènes acouphènes c'est-à-dire avec des sifflements daal les oreilles C'est sa ça jusqu'à la mort. Un médecin maladie. Tu vas vivre avec ça jusqu'à la mort. C'est des acouphènes. C'est comme si des grillons, yu nekk sa biir nopp yi di di di di di voilà di yóbbu waaw fi mu toog nii di sans ça mais <laughs> ah bu lekk jotee ma lekk bu tëdd jotee ma tëdd saa yu mu ne lay baax na. mais ban force moo lay maintenir dans cet état là de résilience de voilà de combativité. yàlla. gëm yàlla la parce que mooy def li muy def ci doomu aadama bi nit mën koo dindi. la leçon de morale bu nu mën a tiire ci euh, yow euh, li nga dund doon servir état ba ñàkk ci say loxo ba euh, dund ay conditions yu jafe-jafe yaa ngi gis yaa ngi wax say nopp ni muy siffler. loolu lépp nga dund ko ban leçon de morale nga mën a euh, la la jox ci àdduna. waaw leçon de morale bi ma jox ci àdduna daal monsieur Guèye mooy dellu si ci yàlla maa lay wax ne la mu xëyaan daaf ci bunt bi lay taxaw sama invalidité bi sama handicap bi. du ma ko gis liggéey bi ma dénk foofu laa doon def am na ñu bëri te bu ma taxan di wax ak ñoom bu ñu waxee dañuy dañuy dañu may xuli seen bëri dañuy xool ma loolu ma nekk ma si foofu di ko la yàlla yàlla moo tax j'ai pas xam ne ñoom laa nekkal mooy sama njaboot ki samay doom sama jabar suma bay suma baay benn yoon euh, te yàgg na. ci soxna si. wala si benn affaire. benn affaire yaa ngi cinquante cinquante cinquante cinquante cinquante et un cinquante deux ans de mariage. kenn mosu ko dëggal dara kenn de bon xam nga bu fekkee ne am nga nag yu mel noonu sa say doom pareil yàlla def na jaar nañ fi war a jaar ñu ngi déglu seen ndigali waajur ñu ngi defal seen seen waajur liñ man ñu ngi ci sant di leen ci këram di leen ñaanal loolu bu fekkee ne yow am nga ko yàlla ak yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko jox la courage boo xam ne bii ak moral boo xam ne bii sa moral d'acier sant ko rek ngay def capitaine Babacar Ndiaye ta famille peut être fière de toi mention spéciale à la grande dame euh, beaucoup de leçons de vie Malick Thiandoum euh, tu as vécu euh, cette histoire parce que am na loo looñ ci mën a baaxee euh, mais ñu taxaw nag même ci courage ou euh, mon capitaine tous nos respects capitaine Babacar Ndiaye le Sénégal est fier de toi encore une fois beaucoup de leçons de vie parce que li mu dund et li mu wax c'est important on pardonne mais il y a des choses qui restent enfouies dans le cœur on n'oublie pas on n'oublie pas Euh, mu nekk euh, épisode bu bu bu bu metti euh, moom mu dindi ko ak gëm yàlla mhm. parce que déjà loolu mooy leçon bu ñu njëkk a ci li nga xam ni moom la moom capitaine wax léegi mhm. ku gëm yàlla la mhm. ku nangu dogalu yàlla suñu boroom la gëm na ni moom ci rendre service ci liggéey la ko li ko dal te liggéey jaamu yàlla la mu nekk sous les dem au front pour def liggéeyam li koy dal ko ci mu ànd ci ak gëm yàlla beneen bi ci des aussi mu nekk nga xam ne période bi ko mbir mi dalee euh, fa lay laytika yàlla ko yàlla yërëm mhm. amoon na ci taxawaay bu am solo jàppale ko ni nañu ko defal faj bu gën mhm. docteur Guindo bi nekk centre d'appareillage aussi jàppale ko mhm. euh, ñu faj ko faj bu mucc ayib ba tey ji mu toog di ko nettali mais leneen li nga xam ni moom moo ci des moo di ni moom Nancy la doon dem di faju ji euh, di fa am ay rendez-vous périodique prothèse yi nga xam ne moom la ñu gis nii ci loxoom dañ ko war di changer mais jamono ji mën nañu wax ne bu doon lekk la ñu ne dafa périmé. Mhm. donc prothèse yi adapté tul dañu ko war a changé. te ba chaque cinq dañ ko war a changé actuellement changé wuñ ko parce qu'il y a des lenteurs administratives. Mhm. moom bind na docteur Guindo mais état wu Sénégal bu ñu gisee lii aussi. Mhm. war nañu accélérer processus bi. pour mu changer ay prothèse am. Euh, continuer dund dundam li mu wax nag. lu bari lañ ci mën a jàngat. jaam dafay nangu dogalu yàlla suñu borom. Mhm. mais aussi ak lu mu mënti demee. Mhm. waaw bul bu ñu fàtte li xewoon. Mhm. parce que li xewoon lan moo ko indi woon c' était un contexte politique très tendu. Mhm. ci li nga xam ne moo doon dévaluation franc CFA. mu amoon ay manifestations. Euh, ci boobu gars dañu bëggoon dem coûte que coûte palais. ni dañuy dem on va sur le palais ci la Ablaye Wade lâché la célèbre phrase vous voulez marcher eh bien marcher. gars yi ci lañ dem marcher ñu maate marche bi. mu am ay échauffourées man am na si ku nga xam euh, gardien de la paix Babacar Thiandoum moo ma yoroon. Mm-hmm. ma nekk ak Abu Anne Abou Anne nekkoon jantal grand. Mhm. mën football. Mhm. mais également nekkoon un policier modèle. Mhm. ci loolu ci la ñàkk bakkanam aussi. jour boobu maa ngi fàttaliku njabootam bi jegee ne Abou Anne gaañu na. c'était c'était la tristesse totale et la consternation. au camp am na ñu nga xam ne aussi amoon nañ ci ay blessures. lu mat ay cent cinquante personnes jàppoon nañ leen. mais lan moo ci mujj. non lieu total. pour ñi nga xam ne peut jàppoon nañ ñi ñoom ñoo def jëyee jooju. ba muy Modou Diop. Mm. Moustapha Dieng mm. Daour Ndour. Mm. Abou Anne Abou Anne Ibrahima Faye moom laa doon wax léegi Ibrahima Faye El Hadj Amadou Sogui mm-hmm. donc ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana. Mm-hmm. mais lu ci munti am rek mooy euh, en tout cas lu metti woon la. lu tiisoon la. Uh-huh. te moom capitaine war nañ ko taxaw. sunu invité bi peut-être dina xaar dinañu jéggal également jël nañu ci temps mais li ko jar moo ko jar ay surtout juste un petit mot. laata ñuy dem ci invité bi je vois que sur ce plateau am na ñoo xam ne nee nañ seen ay rangoon jeex na ba Sénégal jëlee coupe bi mais tey gisaat naa leen ñu sëngeem euh, c'est important et puis euh, le message mort pour le maintien de l'ordre public et la défense des libertés publiques muy sunu ay takk der di ay policiers yoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan le février à Dakar ay satu waaw man de vraiment ça ça m'intéresse beaucoup parce que boo koy seetaan mhm. dafay relativiser oh beaucoup de choses mm-hmm. ñu ngi wax sànq ay euro politique di wax ñu liggéey ñu di wax euh, ñu mm-hmm. ñi nga xam ne dañu ñàkk seen euh, seen bakkan seen bakkan je comprends vraiment lu lu lu tiim may nañ ko may mouchoir Aïssatou Diop Fall euh, c'était c'était très dur voilà parce que c'était des éléments yu nga xam ne mhm. euh, dañu xawoon isolé wu très juróom benn la ñu woon gars yi mhm. fekk leen foofu massacré mhm. leen rey leen rey ñaaw ñaaw ñaaw donc Aïssatou qui quand même ah, c'est tout à fait normal euh, nañ ko may mouchoir Cheikh voilà mun nga ñëw may ko mouchoir c'est pas du tout méchant ñu koy ñu leen di jaajëfal bu baax Chérif da nga ci bëggoon sànni dara wala ñu dem ci invité bi attends yokk ci dara parce que Mali wax na ko. Mm-hmm. Euh, capitaine bi ci ba léegi rek moom ci ngërëm yi. parce que mm-hmm. buñ bi ñu montaale yónnee. xëy na dafa ci entretien bi moo tax mais jàpp nañu aussi 2010 commissaire mm-hmm. Abi Camara léegi la direction du budget et du matériel moom it na ci ban koy jàppale ki ko fa remplace également di commissaire Mbacke Faye mi ngi def kémtulaay kàttanam ngir jàppale ku mel ni kon ba léegi kilifa yi fàtte woon moom tam moo ko Euh, muy lu doy waat nuñ ko waxee ñuy fàttaliku waat njabootu euh, ñi ñàkk seen bakkan muy euh, suñu takk der yooyu Modou Diop Moustapha Dieng Daawur Ndour Abou Anne Ibrahima fay ak El Hadji Amadi Sogi Seck di masawaat njaboot gi ndax góom la boo xam ne dootul wér et puis mention spéciale à la grande dame madame Niang Ndiaye pardon bu capitaine Babacar Ndiaye ak toute la famille Ndiaye et puis Mortala merci pour ce beau témoignage yow ak équipe bi nekk sa ginnaaw merci également de nous avoir fait pleurer. et par à fait euh, donc li nga xam moo taal def na ko dafa am solo lu mel ni il mm-hmm. faut ñu ci dellu si mm-hmm. pour di fàttali xale yi ni mm-hmm. lu mel ni amoon na fi bu manifestation di am tamit ñu sóoraale na lu nekk mun na ci voilà Mortal eh. eh, xel takk der yi parce que day firndeel na ne yàgg neen sonn ci terrain bi c'est ça chaque jour ba léegi ñu ngi ci eh, affrontement yàgg na fi am encore après ces takk der yi war nañ leen vraiment bàyyi xel. ayca sëriñ bi lu ni na fii ci manifestation mois de mars yi ba ay amputation am ci. ci ay takk der je pense que comme ni ñu ko waxee rek. nañu def tu ba moytu sax genre xeetu manifestation yooyu. Mhm. et puis Mortalla merci encore yow ak équipe bu Infos Matin nekk ci ginnaaw élément bi yëpp ni ma ko waxee woon merci de nous avoir fait pleurer. et puis yi euh, c'est pas des extraterrestres. voilà c'est ci ñun la ñu bokk. Mhm. ci suñuy njaboot la ñu bokk. bu ñu leen xoolee bëtu ennemi. jërëjëf ba di leen faagaagal wala di mm. leen rey di font partie de la société mm. man sama ñaari frère groupement mobile d'intervention la ñu bokk mm-hmm. yow mi am nga frère peut-être bu nekk policier ñun mm-hmm. ci njaboot gi la ñu bokk lu manifestation métti métti nañu mm-hmm. xam ne ñoom ci seen liggéey la ñu nekk cër bu ñu leen war a jox ñu jox leen ko xam ne c'est pas des ennemis ce sont nos frères jërëjëf 9h daanaka jot na tey moom euh, événement bi ñu indi moo ko moo ko laaj ñu dem euh, dalal sunu invité